Hmm. Mm.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 The Mama.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 وعز إدراكما Shapiro. aí. kilakiatin.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 السماء مع نعم يليهم الجن والأملاك والملك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 أهل السماوات والأرضين أو يذر مولاي ملء السماوات والأرضين مع جبال والفرش والعرش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 من لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا غاية وانتهاء أي عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر مولاي صل وصل لم دائما أبدا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 والقلب منكسر مولاي صل وسلم لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يديك إذ صبح الحجر مولاي صل وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك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 عنا أنت مقتدير مولاي صل وسلم دائما أبدا آمين على حبيبك خير الخلق كلهم وفرج الكرب عنا أنت مقتدير وفرج الكرب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 كن لطيفا بنا في كل نظيلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نظلت في مدحه السورة Ready, my شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتشر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر عثمان ذي النورين من كمولت وجد لي عثمان ذي النورين من كمالت وجد لي عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في دارين والله على حبيبك خير الخلق كلهم كذا علي مع ابنيه وأمه ما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياج أو بدا السحر عن شيخنا تجان قدوتنا شيخ المشايخ يا طوبى لنا الظفر وعبده نجل عثمان الذي انتشرت به طريقتها يا حبذا الوذر يا ربي صل وسلم دائما الحبيب وأهل البيت كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على النظير وآل البيت كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على الشفيع وآل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 صلي يا إلهي وجزيا أبدا آمين عنا محمدا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم وصليا يا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 mbokk yi ñuy seetaan ci ndigalu alxalifatul am li taifati tijaaniya sëñ Aboubacar Sy Mansour ci ndigal ay rakkam njabootu kër Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp góor ak jigéen waaye mag ak ndaw njabootu maam alfahima yoroo yëpp ñi ngi am mbégte di ànd ak yéen ci burdu bii di burdu populaire Louga ku ne xam ni contexte bi xew ci jamono moo tax ren incha allah rabbi ñu organiser ko nii bokk kook fédération Jeune Tidiane bokk kook COSCAS bokk kook dawaayir yi nga xam ne ñu ngi ci xadara Louga gépp waroon daje defandoo ak yéen bis bi ci jataay bi ci bërëb bi nga xam ne bërëb bu Cheikh Seydi Hadji Malick radiallahu taala la muy Louga Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu ñu denc fi soxna Cheikh Seydi Hadji Malick muy soxna Roqaye Ndiaye way juru Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu at mu jot euh, commission décentralisée euh, décentralisation bourde ànd ak tabarkalla mbokk yu tedd yi ñu ñëw fii ci Louga ngir jàllale message yu xadra kër Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp ku ne xam na ni yonent bi moo xewle sallallahu alayhi wa sallam bàyyi bu saaxu yàlla na yàlla yokk leeram daan wax ne yàlla kenn du ko jiñ par parloo waaye su fekkoon ni mën nañoo abbu baat bi def naa li mu def ci Seydina Muhammad li mu jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jagleelu ko benn mbindeef bunt bii nag ñu toll tey muy juróom-ñaareelu bunt borom téere bi di Muhammadul Busiri di ci wax Seydina Muhammad naan ko yaa xayra man yamama al aafuuna saaxatahu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al aafuuna bu dee ci wolof mooy ñuy wër di xaaraan aw ñam mais Seydina Muhammad wàlliyu yi aqtaab yi abu yi nujabaa u yi wudaraa u yi xukamaa u yi aarifuuna yi ñëpp ku yaa ngi jëm ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que leer ya ngay jële ca yonante ba di ko màndee ak di ko naane kenn bokk sa morom leer moo tax seex sidi maal yàlla ñu ko yàlla fayal ci xam-xam ba ni waqad saqaana xaaliqul ibadi thamana maratin bi nuuril haadi mu ni ñun ñi kenn ku ci nekk leeru seydina muhammad bu la yàlla defee ci sa biiru yaay daañu téléguidé leeru Seydina Muhammad mu fekk la ci sa biiru yaay di la tourné ca biir biir ba ànd ak corde ombilical ba di la dundal ci biir moom leeru Seydina Muhammad ba nga war a génn leeru Seydina Muhammad def intervention nga génn jooy ni uwee ñetti araf alif waaw yaa alif illatun li wujudi zaati waaw illatun li wujudi asmaai yaa illatun li wujudi sifaati ñu ne xuruful illati ci arab di ko firee les lettres malades ñu ni déedéet nit yàlla ni al alifu ya alatun moy alla ji tax yàlla wone zat lolu moy harf yi nga xamni ñoy xëc harf yi ëpp martaba ci ci arab ñoy ëpp xëc harf yi nga xamni ñoy ñooy xuruful te moy waawun ak yaun ak mimun ak nunun kon nunun ñaari nun la waaw ko xëc mimun ñaari mim la yaaw ko xëc waawun ñaari waaw la alifa ko xëcc ñetti alif yooyu araf yooyu ñooy araf yi nga xam ñoom ñooy xëcci boo demee ci wàllu nit yàlla yi nag kenn ku ci nekk sa maqaam moo tax alif ñëw jub pour nuroog taxawaayu yàlla ñu borom borom borom xaraf yëpp ànd ni nañ jël mbaxane mañ yor te mooy hamza ñu sol ko ni ko yaay capitaine bi moo tax bismillahi rahmaani rahim ñu guddal alif ga ngir lan màggale ko yàlla waaye iqra bismi rabbika baaga ñu gis ne defuñu ci alif parce que loolu mooy lan taxawaayu yàlla ci Seydina Muhammad waaye nga yëg ni Seydina Muhammad mooy kan yàlla mi nga ne mooy ahadun di kenn bi alifu ahad taxawee def ta jalli dal ci xaagi ca la xaagi mënatula muñ ba ba ba wërngalu jur fa miim miim nga di miimu ahmed waaye boo xoolee waawun mooy juróom benn biñ ne Seydina Muhammad kañ lañ ko war a annoncé min baadima قد خلا واو يقال لها ها انت حملت بدر سيد الامم مي واو نياري سيس لا بن الف موي 13 بو جيل احد من 13 لا جوخ مو دل وات يالله سبحانه وتعالى nga xamni kon limu tanal سيدنا محمد tanal ko ken kon ñepp ñi ngi jëm سيدنا محمد ñi ci zahir ñu ngi jëm ci yonent bi waaye ñi ci baatin ñu ngi jëm ci Seydina Muhammad moo tax maam Abdou Aziz waxoon ne bihi naa la maa naa la rijalu maratiban min al malikil allaami jalad an il xasri nee na nit yàlla yëpp martaba yi ñu am ñu ngi ko amee fan ci Seydina Muhammad ak dayta sëñ Babacar si góor ga ca bone kaara ba du ko jengal du ko sengal samedi ba samedi lay wattu dàq fi raw fi yàgg fi yàq ni ko ad dayta farda madixin summa naafilatin nee na ko indi nga faratay tagg waaye indi nga naafilay tagg ndek xamuñu woon ni tagg Seydina Muhammad am na fu mu nekkee farata waaye ndek am na fu mu nekkee naafila fa indi fa ka antakat yow taq tabisul anwaara wa siyaara nee na ko ndek kon anwaar yi yaa ngi koy génne ci fardu tag yi waaye nag siyaar yaa ngi koy génne ci naafila tag yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon borom téere ne ko yaa xayra man yamma mala afuna waaye ndekete ca màkk fa mu tëdd nee na ko way dox yëpp way saaxaata saaxaatafoo ëttam ba saa yan ñenn ñi dañuy dox nga dégg jële ci oto ñuy jël bus ñuy jël train mooy liy dox ay tànk yàlla nee na am na ci dàbb yoo xam ni ñaari tànk la ñuy doxee am na ci yoo xam ni ñetti tànk la ñuy doxee am na ci ñoo xam ni ñeenti tànk ak loo xam ni kat waye zidu fil xalqi ma yasha jal jalaan dugg ak boroom tànk yu bari nga yëg ni métro yi ña nga jëm ci Seydina Muhammad oto yi ñeenti tànk yi ña nga jëm ci Seydina Muhammad waaye biisu six pneu yi ña nga jëm ci Seydina Muhammad kon sa ayen ñenn ñi fa lañ jëm ñii war ko ci ay giléem wa fawqa mutuunil ay nuqi ñenn ñi ña nga ca kaw joggaree giléem ya ar rusumi ya aji riñ ci riñ ci mooy di daw jëm ci Seydina Muhammad kon ba waxe ci kaw rek la tuddu avion ñi dugg nañ ci sayyidna Muhammad jël nañ avion jëm ci yonante bi alayhi wasallam ñepp dajje fan màkkatal mukarrama waye jaar madina taggu ya buntu Yalla, fa anta babullahi, ayumri in ataahu min ghayrika la yadkhulu fokk jaar madina ni Yon bi salaa salaam maa ngi Yalla, yàlla nga ñew di aji aji màkka nak ñu won la yawma khiyam gi nek ndekete kaaba gi yawma khiyam moy taxaway yalla nit ku nek bo de ñu wutal juroom ñaari mètre percal ñu ni ñi aj na ngeen tak soli armal yéen xam ne mi ngi nuroog perkaa lañ leen sànge bu ñuy jógee kenn du sol yére ndekete buñ lay suul doo sol yére dañ lay taraxlaayal kon yéeg leen ni taraxlaayu ngeen tey yéen ñëpp ngi wër kay kaaba gi kenn rek fa nekk muy jënd jëmm muy yàlla subhanahu wa taala ñu di ko wër di ko màggal ngir lan représenté ëllëg yowmal xiyaam bu ñu demee ci kanamu yàlla subhanahu wa taala waaye ci ku ñuy jaar na di sayyidina muhammad keroog la ñëpp yi afale aadama jaxasoo ni maa lekkoon garab ga nu wax ni man maa ni woon rabbi laa tadar ala ardi min al kafirina dayyaaran ñu bàyyi ko fa yontu yàlla Moussa ñu ne Aysa kaay ñu mu ni man lañ doon ciiñ doomu yàlla bala maa tara li jënti dara li jënti loola ñun Seydina Muhammad mu tëll ak rafetaay ba laaj maal mi ngi jàngale ci xilaaf saxam nan la yonti bi rafeta woon moo doon nee na yonti bi bu daan gestu daawul tourné baat bi yaram bi lay tourné ci diamètre boo xam ne boo ko xoolee lam lay jox ci ci nombre turu yàlla la lay branche neen Seydina Muhammad mbagg yi daf la cornomètre ba la ñaata distance ci centimètre la mbagg Seydina Muhammad tolloon nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nooyaayu yaram ba foo ko takk weesu na ko nabi bu loo muuñee nga daanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaj maa ne boo ne tëll jàkkaarloo sa fit day dem mais boo toogee quelques secondes nga gis ne la leeru Seydina Muhammad di delloosi dem ba ca biir yaram yu tàng mu di xul in xulta ab nabta fi taw si fi xultu naam li kulli maqaamin xaqun kon nag fa la tadimi te xas ñu ko àllaaj maali bu ñu jaaxal yow yaa ngi ñëw ci nuunu ya ñuy tagg Seydina Muhammad nga naan ñu daal itnaaba is xulul baraya unilu maa unilu bil mu biini nga ñëw ba ci mimee bëgg faa def itnaab mun leen déedéet bu leen ma sonal itnaab dafa am fu ñu ko war a defee fu ñu ko war a defee ndax bihi taabal ilaahu bihi zunhuni bihi toog bihi mu fukki bihi ak ñaar mu ne yonent yëpp lu ñu am moom la ñu ko am ba mu yàgg mu ne daal itnaab is xullu baraaya mais bi mu songa Seydina Muhammad nag ca taar baag rafetaay ba ca jëmm ga moo da dem bu ma toltee boppa muy def litnaab déggate waa bayaan balaaxa may nañ am na fi may itlaab itnaab googu nag moom la ko may mun na ko xaama bu nekk ci Seydina Muhammad am na foo xam ne boo itnaabul doo dem Seydina Muhammad yonent bi saa sallam mu ne ko nag wa mu tóonul ay nu ko rasami wa man يو سيدنا محمد ميغا خامني هو الايه الكبرى يالا تي سوره الروم ما غاي من اياته ومن ايات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه توبو من ايات اختلاف الوانكم والسنتكم توبو من اياته ديك ايه يالا ام ييب تي ادنا الايه الكبرى موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باسكو بلو وون موم ايه يي غيس دو ام موت سيني عباس نيكو اياته قبله اياته معه اياته بعده ايات اياته كوكا سيدنا محمد لبم كيمان لموم يونتي بي صلى الله عليه وسلم كدو هو الآية الكبرى مه لمعتبرين نيال كوي خلم دي خلات ياي خم آية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغني با تي ديكوفيرت سيانتيفيكي ني نكاي نيانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باسكو الفاتح لما اغلق بو نكو وخه تنكول تي بن الفاتح لمن اغلق باسكو بو نون لمن غا خامن يونتو يي جيت مي لما لا واخ باسكو بو مان لا ني ام خيل لا مي واخول مان جوجو ما لا boo mënta dégg miim gi ci miim bi maa gi ak alif gi ci maa mu jox la 41 nga xam moom la ñuy delloo ci mam aadama ndax 45 bi mu taxaw doo mën xam alfatiha lima ughliqa wal xaatimi lima te waxoon ne bu nu woon yonent yu jiitoo kon danaan xaatimi liman sabaxa ñu jiitoon waaye waxul liman sabaxa nga yëg ni kon ay ayatul kubra mooy sayidna Muhammad waaye waxu an ni'matu mooy xéewal ga nag al uzma parce que yàlla am na fukki ni'ma ak benn yu mu tudd ci alquran mais yëpp daf koo tàllal ci taawu basit nga xam ni ni'mata tag day tali am ci yenen neama yo xamni tag day ron par lutax mu rowal yenn tay ci neama lutax yenn neama mu tàllal rahma lutax mu rowal yenn tay mais rahma lutax mu talal yenn tay nga yëg ni borom téere ni ko huwa an ni'matu ndax yàlla dafa ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan alan mooy al itmam yonte dafa ni bu'istu li utammima makarim al akhlaq kon ni'ma yi tal yépp ci alquran nga jëm ci Seydina Muhammad moom la boroom ñi nga xam ne moom ñooy def alimu rasmi tënk ni ni'mata ta maa kaahinil insaani hum kufran yuri kuntum wa maa hal hammasum yooy mooy ni'ma yi tàll ci alquran muy fukk ak benn yu jékk Seydina Muhammad li mu wax tani waaye kuy wut ay koom nag muy yont bi nag kaay guddi gi la yàlla invité kër yàlla sa rayta min haramin rañaan nga dox jóge ci bërëb muy ah, masjidu ah, haramil masjidil aqsa lay leen guddi ilaa haramin keroog la yàlla invité Seydina Muhammad lu tax yàlla invité Seydina Muhammad parce que yonte bi boobu bàyyi taxam gaañu na soxnaam Xadija bañ ko doon protéger gaañu na mu dem Taïf pour seeti ay nijaay ñu toroxal Seydina Muhammad alaaj maa ngi ne lañ ko fa def ñeme wu ma ko wax laaqa mina sufaha ima la afuhu bi waaye wa saqa adma wa sala damu lil qadami malaa yi def révolte ni yàlla yaa ñu moom mais yàlla yonent bi li mu toll ak dara ji nga bàyyi ko ñii ñu koy sànni ay xeer ku ne di ko def lu bon yàlla ni leen yéen waa suuf bu ngeen xamul garaatam dinaa leen wan ni am na ñu xam garaatam ma invité ko foofu ca la ko yóbbu al isra wal mi'raj malaaka yi ma maajal ko ku ne taxawal Seydina Muhammad saa salaam ibbil ko buntu àjjana yi ibbil ko safara ibbil ko lu nekk ma xam Muhammad di rañaan di yéeg mu ne ko comme yéen waa suuf xamu leen luy garaatam xamu leen luy darajaam man yàlla dinaa ko invité ci ñoo xam ñoo ñoo xam darajaam ca la ko invité guddi al isra wal mi'raj yonte bi dem rañaani seeti yàlla ñu ne alaaj maa ndax yonte bi gis na yàlla mu ne werante yi bëri na waaye nag di ca nuunee ba mu jàng ne ni ra'a mawlaahu faqata fa xayra diini ñu ni ko noono ndax Aïcha dafa ni ana nuurun anna yonent bi saa san dafa ni yàlla leer nan lañ ko gisee waaye ndekk tey booy tudd tur yàlla yu nuur ja la bokk ndax allahu nuuru samaawaati wal ardi masal nur comme bu fekkee yàllaay nuur nag kon bu gisee nuur googu mën nañu yàlla la waaye nag ca déggin ak keewarante borom xam-xam yi sore ci kon bu gisuloon yàlla du doon kéemaan ndax ñun ñi kenn du ci gis yàlla waaye Seydina Muhammad nag keroog sëñ Babacar nee na ba mu demee ba ci kanamu yàlla nee na yàlla ibil ko saalam mu toog nee na décooru saalu yàlla ni mu rafete nee na fauteuil ak marbre yi ci misaal mais nee na yonante bi yaram ak teggin mayu koon mu sigi di xool décor bi nee na mu kalliman bi jadiril hamdi baari ina mazaqa ba un wa ba baadaha raaw nee na ma nee na nee albasaru maaraa la yàlla wax ci alquran nee na sayidna Muhammad tegginam tax na ba siggiwul kër kër ci kër kër yàlla di xool benn décor waaye nag dem na ba benn xaal jàpp ko bëggatu la ñibbi ndax nee na mushahada bi mu am ak yàlla moom sayidna Muhammad bëggatu la wàcc yàlla yëg loolu ci moom ne ko mais boo demul àdduna tukki parce que am na ñu la yaakaar ni ko waaye maqaama bii nga toll ba bëggatoo ñibbi dellul ci suuf boo kàbbaree julli ma roof la maqaama bi moo tax mu ne ne uxbibtu min duniyaakum salaasa ñett lañ ma bëggloo te mooy jigéen yërëm jigéen waaye parfum waaye nag wa joxala qurata ayni fi salaati lay seddal sama xol moom Seydina Muhammad mooy ci julli moo tax yonent bi masaan sonn bu bëggee nopp day naafile yàlla ni ko këru maqaam yi boo eggatee ci kaw suuf rek incha allah rabbi ma jox la maqaam boobu muy kon nag kon kamasaral badru comme ni mu rañaanee weer fii daaji mina zulum yi nee na weer guddi ni mu ni muy jógee nee na di di di di dox nee na keroog Seydina Muhammad bi muy dem kër yàlla noonu la voyage bi la moo tax bi dem guddi di demul bëccëg moo tax guddeeg bëccëg weerante nañ ñoom ñaar ku gën ku ëpp martaba bëccëg ni ko maa la gën parce que man julli juróom yi yi ci gën a bari ci man lañ koy defee ndax daanaka suba maa ko moom te maa moom tisbaar maa moom tàkkusaan timis daanaka bu ma la ci mosalu doo lekk mu ko waaye guddi ni man nag bu yonent bi man la voyage nag moo tax sa rayta min xaga kama sarabati fi amin sabi wa bitta nga fanaan tarxaa di yéeg ilaa annil ta masirta moo tax sa sidna Mahamad borom téeram nee na muy yéeg nag dem def ascension jëm kër yàlla ilaa andil ta manzilatan mu dem ba am ci benn wàccuwaay benn maqaama boo xam ne nag min xaabi xawsay ci diggante xaaba al xawsay ni luy xaaba xawsay ni ndax xaaba xawsay ak aw àddunaa diggante boobu martaba juróomi doxu juróomi téeméeri at mu ci diggante xaaba xawsay ak diggante aw àddunaa mais xaaba xawsay lan lay firi est-ce que xala xala la ak xocc bi est-ce que bant beeg buum bi la fekk déedéet ndax wu nee na duñ benn fett ak buum ñaari fett yuñ dend la la nga xam dañ leen a këppale mais fett nuun lay représenté mais xaj bu ñu ko xaaj ci digg bi tax gisoo kut la rond bi jarran wa nasban baada ba xat ulif kon xaw seen yooyu ñaari fett yooyu ñu ne diggante jege yàlla ak jibril ak yonante bi la lu ci nekk rek wax nañ ko ci xaw sey ni waaye daal dem nga ba jege yàlla xaaba xaw sey ni waaye lam tudd rek maqaama boobu kenn mënatu koo dab waaye walam turami kenn du ko jéem a sàkkooti waxaddamat ka jiital la nag jamiul anbiyaa biha keroog bi yonante bi demee association yonante yi dañoo rang julli ñun sëñ Babacar xamoon nga malaaka yi ña keroog yonante ñaata rang la sëñ Babacar si jàngale ko ca xam si yamba nee na keroog sept rang la la yonante yi def yonante bi saa salaam jiite leen yëg nga ni noonu la Jibril di noddee kaw asamaan Mikaayil di jiite Asraafil nekk naayib bi ni julli amee ci kaw suuf noonu la nekk kër yàlla loolu boo demee ci ruuxul bayaan dana la wax ili noddukat ba wax la ilimaan ja wax la koy jottali nga xam ne julli mooy li yàlla moo tax nit bu dul julli rek mënut julli bi tax sax bu xëyee ñëw rek ko xam ne doonul woon julli moo tax yonent bi saa sallam dafa wax ne li teqale nit ak yéefar mooy bàyyi julli yonent bi saa sallam ñëw yon yonent yëpp rang moo war leen ci wax xaddamat ka ambiya wax wat xaddamat bi ambiya ni ko borom xam see waxee nga xam ne ñëw jiita ko jiite si yonent yëpp jiite leen ko ñu ni ñaata rakk la ñu ni ñàkk waaye sañ Babacar nee na dinaa leen sàcc wax la sàpp malaaka sàpp yonent ñaata la woon mu juróom-ñaari sàpp la woon keroog yonent bi moo leen jiite fii mawkibin kunta fiihi saahibal alami mu jiite leen ñëpp bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pare ñu wër ko mu ñaanal leen Seydina Muhammad continué bi mu demee ba Sidratul Muntaha fala ko fala fala fala fala yeesalee malaaka yi ñoom it ñu ni ko ñun fii lañ mën a yem parce que bu ñu dépassé fii rek degré tàngaay bu nekk ci kaw asamaan daf ñu ya daf ñuy lakk yonte bi ñoom it ñaanal leen foofu mais yonte bi nar a wéet ci yoon bi yàlla jël baatu Aboubacar monter ko ko ci kaw mu naan ko yaa Muhammad mu jàpp ni Aboubacar war na ko mën a wéttali Seydina Muhammad continué ci yoonam boobu dem ba yàlla invité ko mais yoon yàlla fan la nekk ci kaw asamaan lekk wala ci suuf la nekk lu tax yàlla bi muy woo yonente mu woo ko ci kaw lu tax bi muy woo euh, euh, Zannuni mu woo Yunus mu woo ko ci suuf parce que yàlla bi muy invité Yunus rendez-vous bi ci suufu géej la ci juróom-ñaari géej bi muy invité yonente bi rendez-vous bi ci kaw asamaan la fan la fi yàlla nekk moo tax yonent bi dafa waxoon ni laa tufaddiluuni bi yunus ibni mata bu leen ma gënale yunus waxul ko moo ko gën mais bu leen ma gënale ci jege gi mu jege woon yàlla ci biir ndox ma man ma jege ko yàlla ci ko asamaan si yëg nga ni nit yàlla yi am na fu ñu toll même xalwaar yi ñu def da nga boole biir géej dugg fa def fa xalwa loolu taxaw yonent yàlla nus demoon ca ca biir jën wa dugg xalwa ci biir géej gi kon yàlla fan la nekk yàlla amul fu mu nekk wa rabbul arshi fawqal arshi lakin bila wasfi tamakkuni wa ittisali yàlla moo bind place moo bind kaw moo bind suuf comme ba mu ko bindagul woon fu mu nekkoon parce que boo nee kaw ñu la moo féete kaw boo nee suuf ñu la suuf te yàlla bind kaw bind suuf kon avant muy bind kaw ak suuf fu yàlla nekkoon kon yàlla nekkul ci biir àdduna bi nekkul ci biti àdduna bi yàlla wërul àdduna bi yàlla génnul àdduna bi kon yàlla kenn du ko làmbal place parce que boo nee mi ngi fenn rek jël nga jëmmam monte ko foofa te booba loolu dañ lay dugal ci almu jëssimuuna ñuy jël jëmmi yàlla boo ko dugal ci place kon nag wax xaddamat ka jamilu anbiya wa rusul taqdima maxdumin nee na jiitalu ku ñu liggéeyal ala mi maanaam eh, ni ni ni sang njaatige di sante eh, liggéeykatam mu di ko liggéeyal yonentu yëpp jàppale ne yow yaay seen njaatige na keroog ñoom ñëpp ñu rang ci sa ginnaaw noox taxaw ibrahima taxaw yaa isaa taxaw ku nekk naan waaye muhammad a ngi yàlla waxoon na ko ci alquran de nee na wa is axadallahu mithaqa nabiyin yàlla nee na man maa taxaw yonent yëpp ni leen su ngeen bëggee ma bind leen da ngeen may nangul ni bu Seydina Muhammad ñëwee dingeen ko liggéeyal di ngeen ko jàppale la tuuminu na bi wala tansurunahu léegi nag lii da ngeen ma koy signal ma soog leen bi moo tax am na ñeen fukki yonent ñu woor nañ ay ati at lekkuñu naan ñeen fukki ngi rek bokkoon ci ummat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa anta taxriqu sab'a tibaq nee na bi ngay dem nag yaa ngi xotti juróom juróom juróom ñaari asamaan yi durija ma durija sëñ Babacar Si way ko ca Hamziya ca ca xuruf salaatul fatiha neena yaangi xott juroom xotti juróomi naa yaa asamaan bi fii mawkibin ci benn mbolo bo xamni kunt fi fii saahibal alami nee na drapeau doon demee kër yàlla nee na Seydina Mahamad moo yoroon drapeau ba yoon yëpp topp ko di ko gunge xayru wujudu wa alami shuhud Seydina Mahamad sallallahu alayhi wa sallam xata ida lam tadaa chaun li mustabiqi ba nga xam ne ku doon njëkkante jëm kër yàlla jiitu nga ko ba mayoo ko espace bu mu exploité lépp rek jël nga ko xata ida lam tadaa bàyyiwoo chaun lef li mustabiqin kuy njëkkante mi ne dunu wi ci jege ga nga yàlla waaye wala marxan bàyyi woo yéegukaay li mustani mi koy ñalgu di jéem a yéegit place yëpp occupé nga ko mu ne ko xafata ba nga demee ba ba jege yàlla noonu maqaama bu nit amoon keroog la tuuti xafata ku la maqaamin suufeel nga maqaama yëpp bil idaafati ci idaafa gëñ la taf ci turu is isnuudita bi rafayi bañ la wooyee ci rafaa mis la musafradul alami yaa abdu yaa muhammad ñu jël laa ilaha illa la tekki muhammad rasulullah di ko def ci nodd kon yow bañ la tuddee ci wet nodd rek nga gañ ñëpp kay maata fuusa bi waslin ay mustat tatiri ngir nga am jokk ci yàlla boo xam ni du làqu an loo ayuni ci bët yi waaye nga am wasir na ak secret boo xam ni gayri mukk tati mi du nëmbatooti mu ne ko nag fa justa nga jéggi na ku la fa fa xusta nga am ku la fa xaarin tiitar yëpp Seydina Muhammad jox nañ ko garaadi waaye gayri mushtarik bokk ko kenn wa justa nga jéggi ku la maqaamin bépp garab bu ni doon wut waaye xayri mustaxamante boo xante woo ca kenn wa jëlla kawe na miqdaar ko miqdaaru maa wulita darajay liñ la jox kawe na min rutabin ci ay martaba kenn xamul ñaata martaba lañ waxal Seydina Muhammad waa aaye nag wa azza jafe na idraaku jot maa wulita min niami li la yàlla jox ci xéewal kenn mënu koo tag kon nag mu ne ñun nañ kontaan bushra lana ma'ashara islam ñun ñii di njabootug islam nañ bég waaye inna la naa ñeel nañu minal ay naa yi ci jagleeg yàlla rukk nan ponk boo xay xam ni xayra mun hadimi ponk ba dootul màbbu te mooy lan fexe ba nekk njaboot Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lama daa ba woowee allahu yàlla daa ay naa Seydina Muhammad mi nga xam ne moo ñu woo li taatee ñi ngir toppam bi akrami rusuli lan la tuddee Seydina Muhammad akramu rusuli gën jaata di yont ñun boobaa ku naa lañ nekk akramal umma mi ndax ñun ca lañ nekkee ñi gën ci umma moo tax ah, wala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna al mursalin yow mën a daaw kulla unaasin bi imaamihim kër Seydina Mahamad moo jur ñu topp jo kon nag ah, moo tax nag borom téere bi tëjee ko nag ni mawlaaye salli wa sallim daa iman abadan ala habibika xayril xalqi kullihimi waaye baatinu mii mi mi ngi ci foo jeexalee benn bunt rek tari bayit bi pour yàlla fajala ci sa soxla moo taxoon nag tey ah, ci ndigalu xalifa bi ak contexte bi ñu toll ci mooy pandémie bi nga xam ne moom moo am Eh, yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal ñu ci ay xadis ni bu mbas amee ci am réew nangeen moytu mu yokku nangeen koy moytoon nag mooy wéet ak lu mel noonu eh, ñu ni nañu dajee incha allahu rabbi eh, ci xadara bi muy xadara kër Cheikh Seydi Hadj Malick bi radiallahu taala anhum pour lan jotal burdu bi nga xam ne at mu jot ñu jotal ko waaye jëm ci kan guddik Seydina Muhammad nu ñu koy màggalee nag est-ce que taxaw def mbooloo mooy màggale yonent bi déedéet yonent bi ruuxam mi ngi mi ngi mi ngi communiqué ba fi ñuy wax ak yéen te itam nag suñuy ruux war nañ koo communiquer ak ruuxu Seydina Muhammad te itam du moment bii rek lañ ko mën a defee waaye nag ci moment yi nga xam ne moom la ñu war a la te mooy guddik juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq yàlla nañu yàlla defal cofeeglu Seydina Muhammad yàlla nañu yàlla boole ci ummatu Seydina Muhammad yàlla nañu yàlla teeroo mbaaxu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne li waxkat ba wax ni ka la gën ka ko gën ka gën ka la gën ka ko gën nabee ko gën wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu اللهم صل وسلم